Je me présente, Madame Si Khadiba, euh, déléguée de quartier Cité Léopold Sédar Senghor, euh, présidente des délégués de quartier femmes, présidente aussi de l'association des femmes actrices de développement, AFAT, de la Cité Léopold Sédar Senghor. Euh, je pense que début d'année, c'est toujours pour les enfants. Donc, tu motivation boobu rek la taxaw maanaam bégal yi et puis aussi di ñaan at mu bees mi ñu té je pense que boy commencé di bégal xalé yi mo ci wara jitu donc nak parfois xalé dañ leen di xawa faté lolo taxone rek ma am initiative bi ba paré dama séq ak sen wajuri teranga ndax dañu am ben euh, mouvement bu mak bo xamné sen yaay damay ak ñom teranga euh, donc mané dal pourquoi pas teranga ji ma ngi am ak sen wajuri ñu ñu ñu fédali ci xalé yi bu ko défé au moins li tay li ñu def fi ngeen gis ko xalé yi and foo ndax xale yi ci appartement yi rek la ñu nekk donc ñu bëgg nag xale yi euh, daje bi ñu daje fii def ci ay liens yoo xam ne nii d'amitié de solidarité loolu tax ñu ne tey na ñëpp sol lu weex ndax loolu la ñu lancé daal appel boobu la def tey. à peu près euh, ko lim ndax pour le moment defoon nañ 200 xale mais je pense que romb na ko gis yéen a ko gisal fii seen bopp waaw. te bu ñëwoon aussi ñu ngi fi ñoo ngi lañ fas yéene woon toog ak ñoom ba minuit xale bu ñëw tey buñ sañoon booy dem le sourire la ñuy gis yow mais pas ay jooy waaw. 200 uh-huh. euh, uh-huh. uh-huh. la jàppale. foofu laa bëggoon ñëw ndax dama am ay partenaires euh, muy waa Reva ñu ngi nii toog.

kàddu gu kàddu gu mujj xanaa di woote jàmm rek. di woote solidarité di woote entente. loolu daal en tant que délégué de quartier loolu rek laa bëgg xale yi gën ànd gën booloo gën a xam ne l'union l'union fait la force et jàmm daal mooy lépp jàmm daal la ñuy woote ci at mu bees mi yàlla defal ñu jàmm sutura ak wér waaw franchement. waaw kontaan nañ trop merci beaucoup.